bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan wa hidayatan lilaalamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin wa ala xadim xayri xadimihi cheikh ahmad bamba ridwanullahi al akbar alayhi wa ala jamii atbaa'ihi wa baad asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi jullit yi ñoo ngi jël suñu kàddu ci ndigalul sëriñ Cheikhouna Mbacké ibnu cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacké ibnu cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ndax sunu sëriñ sunu yaakaar tey ëllëg ak ëllëg na cheikhuna ahmad bamba dafa noo diggal ni laa tafaalu shay'an bi gayri iznin waaye izil isnu chartun fi qubuli sha'ni bu leen def dara te amu leen ci ndigal waaye ndigal nag charte la ti ñanguk jëf ñu jël suñu kaddu kaddu yi nag du gudd ñuy muy kaddu yi sant ak ziyaar ci jëmm ju baax ju tedd joo xam ni li ko ñor mooy diine li ko ñor mooy liggéeyal Cheikhuna Ahmad Bamba te di ko defee ci makaarimul axlaaq muy Serigne Ousseynou kan moom Serigne Salihu Mbacké mi nga xam ni moom la Serigne Touba waxoon ni moom la Serigne Touba wax ci ay mbiram lin qaadatil ujur wal masaalih bi tayyi wal jazbi wa inni saalih yàlla ñoddil na ma pay yi maa ko yor lu baax lépp yàlla ñoddil na ko ñoddil na ma ko man Serigne Touba bi tay ci lem nga xam ni yoonu gaa yu baax yi nga xam ni dañ ci doon def ay at ay ati at ngir àgg ca Serigne bi yàlla da koo lemal ndax wax na ni tawaytu tariqal qawmi waqtam tidaahihi wali qadqadal xaajaat bi rawdi wal basti tayyu googu nag yàlla ak jës bu muy xëcc ñoddi wa inni te man saalihu may saalihu maay saalixu may ku sell saalixu li muy firi mooy ku sell sëñ Ousseynou kon sëriñ bi mu ngi lay ziar ànd ak sa soppe ku baax koo xamante ni moom kenn la ci sëriñ bi sëñ Cheikhouna muy sëñ Modou Mboup yàlla dogal itam muy kenn ci yow muy nit koo xam ne ku mën a yéwénal la moo tax moom toujours day defar day day jokkale ñaar ñu baax ci seenu baax googu rek moo tax mu jokkale leen yàlla na yàlla defar lépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki julli di mbokki taalibe gannaaw ñu sant yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant sunu yaakaar tey ak ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba bëgg liggéeyal maam ji Serigne Touba naal yi lépp mu àggale ko te mu ànd koog sëtt Serigne yi waaye ànd koog talibe yi ñaanal jëwriñam ji di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou sunu borom bu may ko wér moom it kattanal ko dooleel ko. ki nga xam ni bu maamam dellusiwaatoon changé toogaay mooy Serigne Cheikh Serigne Cheikh la Serigne Saliou bëggoon rek ca la ne ñu toog ak nag kenn ci jëwriñam yi di jàmbaar ci toolub Serigne Saliou bii waaye di koo xam ni kenn dootu ko présenté ñëpp xam nañu yëng-yëngoo ci Serigne Saliou muy Serigne Ousseynou kan moom Serigne Saliou Mbacké ki nga xam ni dafa jaay ak njureelam jënde ko dafa jaay ak njureelam jënde ko taalibe jeex tak ci Serigne Saliou bëgg ko lool du waxtaane kenn ku dul Serigne Saliou soo ko séene muy dox rek xamal ni moom luy dundal tollub Serigne Saliou ak la Serigne Saliou nekkoon rek ca nuyu bu baax ganam gu tedd gii toog di sëriñ Seexuna moom Seex mu tudda góor yàlla moom xaadim rasul ki toog kenn rek mu dox diggam ak sëñ Tuubaa mu Seex mu tudda góor yàlla léegi sëriñ Ousseynou wax na ko lislaam ci der bu ñuul ak der bu weex fu ne Seex mu tudda tasaare na ko tey jii mu ñëw fekk si xaritam fekk si wëllëreem fekk si soppeem fekk si koo xam ni ñoo bokk pas-pas waaye fekk si koo xam ni ñoo bokk yaakaar muy Serigne Saliou ndax kii toog baayam Cheikh Moutada ak Serigne Saliou doon nu woon ñaar kenn la ku ne xam na ñaari jëm yooyu nanu meloon kenn ku nekk bu musaana gis moroomam da ngay gis soppiku guy am ci ñoom ndax mbégte mi dox ci seen jëm sëriñu Seynu mu ngi lay nuyu mi ngi wax ni bég na lool xolam sedd na lool lii nga def rëy na màggalu Tuubaa ni mu réyee nga xam ni këru mbàkki mbàkki goo dem gan yaa nga fa nga mën a bay si yitte ñëw fekk si jëmm ji doxinam rek ak melokaanam rek la neex waaye am na noo xam ni bu ko sëriñ Ousseynou meloon sa tànk bi doo ko keroog bi ñu demee ci Cheikh Moustapha mu sëriñ Saliou la mu seede ci jëmmam rek doy na ni ko yow yaay gën say maam waaye say doom bu ñu ñëwee ñoo lay gën ndax liggéeyub Serigne Touba rek kanam la jëm dootu dellu gannaaw kii toog maamam Serigne Sine lay kan keroog bi Cheikh Ibrahima Fall wër Serigne Touba ci dëkku maamam googee fala lay wax ak moom wax ak moom Sile Kane histoire yoonu murit kenn du ko ci génne ndax diggante Cheikh Ibra bi muy wër Serigne Touba di ko fekki Bakki Kajoor la xew foofu ku ne xam na ko waaye diggante Cheikh Makhali kan ak Serigne Saliou ku ne xam na ko kii la Serigne Cheikh moom Serigne Saliou doyloo ci lagan nga xam ni saa su tool yi lagan yi ñëwee Serigne Cheikh mu Serigne Saliou xelam du dem ci kenn ku nu Serigne Ousseynou borom xalima gi bërki dem xel kom ku ne gis na liggéey ba ba nga xam ni def nañ ko fa ci lu matu ñaari fan koova bi sëy nu def mbooloo mi ma àndal jëm xel koom fekk si Serigne Cheikh keroog ku ko fa fekk di Serigne am naw nga ko moom yitteem yëpp Serigne Saliou sa maam rek a demoon ci géej gi ñëw jéggal noonam yi sa maam jooju lay sant samaam maam jooju lay liggéeyal sa maam joojee la takk ak laxasaayam fëdli ko joxaat ko Serigne Touba waaye joxaat ko sa waajur Serigne Saliou kon nag sëriñ baa ngi sant mu ngi bég daj daj nag ba dajatoo daj ba dajale ñàkk loo ko dajal wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou jëfati sëriñ Saliou waaw moom de Mbàkke bég naa lool euh, maa ngi lay seeral sama mbég te foo ko tàggee weesu ndax yaakaar naa su digganteeg màggal day donte ñëwagul itam xat na lool ndax benn fan rekk ci des te yéen day lu ñu xat-xat ngir gën noo xat kon seen xat googee boo ca boqee sama jëm ju ñàkk solo ji nga di ko seet si dangaa daral sama xel danga maa soññ ci li ñuy wax lisaanul xaal ndax wax ñaar la lisaanul xaal ak euh, lisaanul maqaal lisaanul maqaal nag moo doon nga jël sa téléphone rek woo waaye lisaanul xaal mooy ma gis sa jëmm day am lu muy firi boo waxul sax day am lu muy tekk kon Mbàkke maa ngi lay sant bu baax waaye nag doxin wi du bett ci yow ndax sa waajur wu tedd wa Cheikh Mahamadul Mourtala mm-hmm. kooku mujaahidul akbar kooku oyof rek ci moom la dëppee ñëpp xam na ni kuy wër oyof rek demal seeti Cheikh Mahamadul Mourtala kon kooku ku muy sa waajur boo defee lii ci jamono bu xat bi ak màggal gi ni mu xatee dara duma ci bett waaye na xam ne wala réyu fasaat naa ko mu yes peq gën na laa jàppati ndax ba sëñ Mourtala dee sa dee sa wajur rek nga am valeur loolu yàlla suñu borom dogal na ko ndax am na ñoo xam ne pour ñu meññ la yàllaa koy programmer mais du nit ki lay neex ñu meññ la kooku suñu borom moo koy programmer bu yàgg-yàgg kon na nga xam ne Mbàkke bëgg naa lool ci seet bi sant naa ci tey da nga xam ne sant naa ci ndax danaa gën a yeesal couleur gi euh, sant naa bu wér ndax lii yàlla rek moo tax nga def ko fii nag lu ñu fi yeew ci ay nag mbaa ñu yeew ko fi ci ay xar mhm. <laughs> sa la waaw sa maam demuloon géej de sa moo demoon géej waaw sa maam moo demoon géej sa maam bi mu sami allahu liman hamida sa maam néewu ko rabbana moom moo waxal boo xam ne rabbana wa lakal hamd maam kenn tontuwu ko <laughs> kon fii boo ne moon génnal kër gi jox ma caabi kër gi barkeb Serigne Saliou damay génn jox la caabi kër gi di la seetaan ndax fii lu fi nekk sa maam a ko fi def lu fi am valeur sa maam la lu fi yeewee sa la kon Mbàkke na nga xam ni bëgg naa lool sant naa it lool dëgëru fit sax tax may jëm a tànn gàtt waaye la ma waroon mooy ni la xool la soog nga yóbbu ko ndax fii nag yi fi yeewee mm. yaakaar naa nag yu fi gën a seer trois cent mille lay jar waaye xar moom gis naa fi xar yoo xam ne laadum la 2 millions lay jar kon man duma la jox nag xar laa lay jox hmm. te xar yi it dama damay wax muuru mot nga tànn bala soob mbàkke oh. nga nga nga yóbbu ko ndax loolu lépp sa teraangay maam la loolu moom na nga ko xam moom te te te jëmmi sëriñ Saliou ji sa wajuru tedd wa rek nag tax ma def ko loolu maa ngi la koy seeral bég naa lool mbàkke waaw naa lool lool lool lool kóllëre gi maa ngi koy gën a sàmm di di ko di ko di ko di ko gën a téye waaw ma ma lii lépp ci cant la bokk rek ndax yokkute rek lii lépp ci yokkute la bokk ndax sa tànk bu tedd bii day nga teg ci sama kër gu ñàkk solo gii day bis ni ki tey day am solo ba faw rek ndax teg nga fi sa tànk waaw loolu day mbàkkee xam naa ko moo tax na nga xam ni bég naa boo gisee li ma sol sax nga xam ne damaa fekk damaa fekk liggéey waaw man moom mag taali bi dañuy liggéey rek kurti kurti rek mu nee ba bis ba nag ma doog toog garam bu toog nag jéem a eh, jéem a jël seenu ñàkk jot li Sëriñ Tuubaa ndax addee dénkaan dong la ah, ku la jox addee moom de mm, denk na la ah, loolu moom maa ngi ciy sant bu baax yàlla na suñu borom dolli sutura rek te dolli xéewal yi te ñu yàgg fekk